Vous écoutez MBS TV Sénégal Culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. <laughs> di ñaan yàlla guddal saw fan yaa ngi ñu fi fekk ñëpp di jaahi safaan Mustafa waaw di wax ni it kontaan nañu ci sunu ñëw bi fii mu doon mbégte bu rëy ci ñun ndax commissaire Fall mën naa ne dafa wëlërante ak ñun muy koo xamante ne nii tàngamlewul suñu dara muy koo xamante ne nii it dafa ñu fonk ñun ñëpp ndax tey kii nga xamante ne nii mooy seen doom di amet njaay di doom ci ki nga xamante ne mooy sunu wayjur wii mu téye ñu ñun ñëpp nag muy doom ji mu jur ak doom ji mu jurul fële ca Thiès fonk ñu teg ñu ci yoonu siraatal mustaxim teg ñu ci yoonu njub di ñu wax dëgg di ñu wax nii la ngeen di doxe nii ngeen di doxe ba tey mu waral tey encore suñu tànk yi ñu ñëwaate ba fii loolu yëpp nag li ko indi mooy kóllëre te kóllëre googu bu saxee ba tey baay njaay mii moo ko def ndax mooy mag mi nga xam ni moonu moonu moonu moonu moonu tette ba tax ñu am yëg-yëg boobu ci sunu biir commissaire Fall nag mi ngi leen di sant di leen gërëm dani xëy na kàddu la te joxe na ko te mënu woon ñàkk mu teew fi moo tax mu ne lu mu mën a def day teew waaye jotam mayu ko woon dara waaye sëriñ bi ñu ngi lay ñaan mu ñu dolli ñu ñaan dolli koo ñaanal dolli ñoo ñaanal dolli ñaanal ñëpp ñu fi nekk waaye commissaire Fall nee na am na am maanaam cantam daal amul fu mu yem waaw mi ngi lay ñaanal gudd fan bu ànd ak wér tey ñaan it ñu ñaanal ko ñaanal ñi nga xamante ne nii mooy service ba mu nekk ak képp koo xamante ne nii rek tey jiite na la ci li nga xam moom mooy li mu nekk waaw mu wax ji nag du gudd ndax euh, euh, programme bi bari na ay mbir bari na ñi nga xamante ne nii ñoo ciy jaar wax dëgg fa yàlla gàttu yi kàddu yi foofu rek laa koy mën a yemale waaw di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullah kii taxawoon di wax mooy kaaw alors moo tax jigéen ñu bari jigéen naan kii de moom xamee nañ ko sëriñ bi kon xam naa ni nga tontu leen rek bu ko defee commissaire moom day dellu. jërëjëf kontaan nañu bu baax yal na yàlla nangul ñu jéego yi yal na yàlla mottali yéene yi ah, kilifa moom bu jógee te muy ku nekk ci barab ñu wóolu ko ba teg ko fa bu jógee rek ñàkk pexe tax mu jóg. waaye na nga fa bàyyee jàmm yàlla na nga ko fa fekke ci baaxu rasulullah responsabilité bii ñu la jox yàlla na ko yàlla mottali yàlla na nga jóge ci fii nga tollu dem ba général incha allahu waaye waaye lépp ànd ak barke ak wér bisimilah oustaz Lamine docteur Lamine Sarr Sarr Sarr Sarr bisimilah bisimilah oustaz Lamine toogal bisimilah àggal àggal toogal kontaan nañu bu baax euh, comme <clears throat> kilifa gi kontaan nañu yàlla na yàlla defal la jàmm sunu xaritoo itam bég nañ ci kóllëre gi bég nañ ci yàlla nañ ko yàlla téyel euh, njaboot gi nga àndal itam di euh, Amet Njaay di sunu doom di sunu xarit yàlla na yàgg yàlla na ci jàmm topp yàlla na ci jàmm jiitu yàlla na am njariñ ci baaxu sayyidul wujud taaw mii nga àndal nag wax dëgg yàlla xam nañ ko ku am njariñ la ku am njariñ la ku ñuy jariñoo la man de dinaa koy seetaan waaw waaye gisaguma itam eh, lu ma sib ci moom walla lu ma ni waru ko wone a defe nii kon nag yal na la yàlla jàppale boo xamee ne boo taxawee ñëpp di la déglu di la seetaan ah war nañ laa ñaanal yàlla yàlla na nga ci am ndam fa nga ci war a àgg yàlla na nga ko fi àgg yàlla defal la jàmm defal la sutura kontaan nañu bëgg nañu yàlla nañ fa dajewaat déwén tubaarkàlla kontaan nañu baax Oustaz lamin Oustaz lamin Sarr dama ko cee bëgg a boole benn yoon ndax sama sëriñ Oustaz lamin sama sëriñ baayam moo ma jàngal li ëpp ci li ma jàng moo ubbi bunt bi te ubbi bunt yombul te dama daa wax ni baabu salaam képp ku fa jaar boo demee ba sori baabu salaam di nga xam ne jële nga fa njariñ yal na yàlla fay la sa papa bu dellu siwaatoon dina ni man kat ba may dem ndekete yéex na maa dem sax waaw yokk nga lépp lépp nga yokk macha allah daara ji yokk na daara yi yokk nañu élèves yi yokk nañu organisation bi yokk na yal na yàlla yokk sa lépp kontaan nañ ci yow de kontaan nañ ci bu baax ñoo ngi nuyu sunu yaay ya fa ne waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax ndax dañoo uufoon téye ñu yal yàlla def jàmm sëñ alfa ñu ngi ziyaara bu baax kon commissaire bismillah jaajëfal len si teewlu bi len abonné ba cloche de notification bi ngir dara